abonné téléspectateur footgal seen 10 dal leen ak jàmm ci journal bi ñuy jagleel lépp luy performance maanaam jaloorey doomu Sénégal yi fële ca Europe. ñu tàmbalee fële ca Angleterre foofu Sadio Mané dugal na fa fukk ak benn libiyoom championnat ak clubam Liverpool ci seen jonganteeg West Ham bi amoon ca stade olympique bu Londres. bi ñu futbalee ñaar fukki simili ak ñaar ci la James Milner centré Sadio Mané def contrôle orienté bu rafet éliminer défenseurs yi dóor bal bi ci camp yi wante West Ham dafa mujj égaliser ñaari équipe yi tàqalikook match nul ndam demul ndam dikul ku nekk dugal sa morom benn bal. Fall Sadio Mané ak Liverpool ñoo nekk ci bopp championnat Angleterre bi ba léegi wante ñetti poñ rek la ñu rawee deuxième bi Manchester City. Everton bu Idrissa Gana Gueye moom Wolverhampton moo ko fekki dëkkam daan ko ñetti bal ci benn Gana Gueye bokkul woon ci jongante boobu Cheikhou Kouyaté dafa amoon gaañu gaañu weekend bi joué wul wante clubam Crystal Palace moo gagné Fulham ñaari bal ci dara Baye Omar Niass moom titulaire na ak clubam bu bees boobu di Cardiff City ñoom ñoo mujj daan sax Bournemouth ñaari bal ci dara. fële ca France Edouard Mendy doomu Sénégal boobu di góolu Stade de Reims def na match bu rëy ci seen jonganteeg Olympique de Marseille Edouard Mendy génne na fa ay occasion yu bëree bëri lu ni mel sax tax na clubam Reims daan Marseille ñaari bal ci benn Mendy moom mu ngi def saison bu mucc ayib fële ca France te jamono ji bokk na ci gardien yi fa gën a xarañ mbay Niang bu Stade Rennais dugalul week-end bi wante moom moo passé bal de bi tax clubam gagné Amiens bu Moussa Konaté benn bal ci dara Ismaïla Sarr moom bokkoon na ci jongante boobu Cheikh Ndoye moom centre bu rafet la def pour attaquant Stéphane Bawokan mu mbëkk dugal seen club Angers daan Dijon benn bal ci dara. deuxième division France Arthur Yannick Gomis bu Racing Club de lance dugal na fa fukkeeli biyom championnat penalty la am def ko si camp yi ñi gagné AS Béziers ñetti bal ci dara. Turquie Demba Ba dugal na bitam bu njëkk championnat te benn mat match dong la football agum ak clubam bu bees boobu di Istanbul Başakşehir ci seen jongante boobu ñoom ñoo làbbali waa Akhisar Belediyespor juróom benni bal ci dara Turquie ñoom ñoo fa jël premier rawee Galatasaray bu mbay jaañ ak Pape Alioune Ndiaye juróom ñetti poñ doomu Sénégal boobu di football Antalya Sport Souleymane Doukara dugal na juróom-ñaareeli biyam Super League wante clubam Antalya Sport Besiktas moo ko dóor dóor yu métti juróom benni bal ci ñaar biir dëkkam. Italie Naples bu Kalidou bali moo gagné Sampdoria ñetti bal ci dara. Kalidou Koulibaly titulaire woon na weekend bi fubal na match bi yëpp Keita Balde jamono ji dafa am gaañu gaañu wante clubam Inter mu ngi ci jafe-jafe ndax ñetti jongante ngi nii amuñu ndam weekend bi Bologne bu Ibrahima Mbaye moo ko fekki biir dëkkam daan ko benn bal ci dara Alfred Gomis doomu sénégalais boobu di góolu Spal jamono ji moom tamit mu ngi ci jafe-jafe ndax ñetti match a ngi nii aligné wuñ ko titulaire weekend bi joué wul clubam Spal dafa def match nul 0-0 ak Kievo Veron ñi jeexaleek Allemagne foofu Schalke 04 bu Salif Sané Borussia Mönchengladbach moo ko fekki dëkkam daan ko ñaari bal ci dara deuxième division Allemagne Babacar Gueye dugal na juróomeeli buyam championnat ak Paderborn doomu Sénégal boobu ak clubam Paderborn ñoom ñoo daan Greuther juróom benni bal ci dara noonu lañ ndar keppee journal bi ñuy jagleel lépp luy performance maanaam rey doomu Sénégal yi fële ca Europe di leen jox dig daje ci ay fan yu néew ci yeneen vidéo